ci fitna wala muy dund ay ay balaa yoo xamante ne si ne dafa wàcce jamono wala ñu ne mawqiful mumini min al ibtilaa'i thème bi am na solo comme niñ ko waxee ndaxte dafa ñëw ci jamonoom ñuy remercier ñi nga xam ne ñoo ñu may occasion ngir ñu mën a partager ak mbokk jullit yi di wax ne Euh, lépp loo xam ne xeetu balaa la ak fee ak xeetu fitna dafa nekk loo xam ne allah subhanahu wa taala daf ko mooñaale ak euh, dundu doomu aadama buñ ne balaa nag mooy loo xam ne yàlla def si nattu jaam bi daf ko si natt am na ñu naan ixtibaar la am na ñu naan la mooy loo xamante ne si di daal yow dañ la ci natt xool yow loolu bu la dalee ndax dangay ngay weddi borom bi subhaanahu wa taala wala da topp li nga xam te ne moom mooy santaane borom bi subhaanahu wa taala li tax ñu ne luy am la ci kaw suuf loo xam ne allah subhaanahu wa moo ko mooñaale ak suuf yàlla subhaanahu wa mi ngi wax ni suratul ankabut xasiba annaas an yutraku an yaqulu la wa hum laa yuftanuun wa laqad fatanna allazina min qablihim wala yalamanna allahu alladina sadaqu wala yalamanna alkaasibin kon yàlla nee na ndax nit ñi dañoo foog ne dañuy leen di bàyyi ñuy wax ne ñun dëggam nañ te kenn du leen teg fitna yàlla nee na nattu woon nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo leen jiitu kon xeet bu ñëw rek day xam ne am na benn génération boo xam ne moom moo ko jiitu te yàlla wàcce na ci woon ci ñoom li nga xam ne moom mooy nattu yàlla da koy wàcce ngir xam ñan ñooy ñi nga xam dinañoo dëggu dëggu bi nag mooy ñi nga xam dañuy des ci yoon bi wala yàlla xam ñi nga xam dañuy lan dañuy tappale dañuy fen kon ñaari position yooyu moom moo am heure bu allah subhanahu wa taala wàccee li nga xam moom mooy nattu dina ci am ñoo xam ne dinañ muñ comme ni ko yàlla bëggee ñu daal des ci li nga xamante ne si nii moom mooy siraatal mustaqim mais dina am ñoo xam te ne si nii dañuy weddi borom bi subhaanahu wa taala weddi teraanga yi nga xam te ne si nii moom la leen defal bu ko defee ñu bokk ci ñi nga xam te ne si ni ay fenkat lañ dégg nga kon loolu daf lay won ne loolu sunnatullaahi fil ard la maanaam benn doxalin la boo xam ne allah subhaanahu wataala daf koy daf ko mooñaale ak dundu doomu aadama même si fa si si si de façon individuelle nit ku nekk da nga am loo xam ne moom ngay dund yenn saay ci ay tolof tolof ni nga xam noon allah subhanahu wa taala bindee euh, jamono nga gis tey day taw bu subaa mu sedd wala léeg nga gis mu guddi léeg-léeg ko nga xamante ne si nii dund doomu aadama bi tam noonu lay amee ay ak ay bas léeg nga nekk ci loo xam ne ay bànneex la wala léeg nga nekk ci loo xam ne ay njàqare la ay fitna la léeg-léeg feebar feebar fekk la ginnaaw bi nga xam danga wér lool ñu xamante ne si ni ci ni yàlla bindee doomu aadama ci loolu lay am moo tax soo demee tam ci suratul baqara dangay ngay dégg allah subhanahu wa di wax ne wala nabluwannakum bi cheyin min al xawfi wal juu'i wa naqsin min al amwali wal anfusi wa wa bashiri sabirin yàlla ne dinañ leen nattu de ci leen loo xam ne ragal la waaw je crois que ku nekk boo nattee ci sa dund di nga mës dund ci jamono joo xam da ngay tiit da ngay ragal ah am na jamono joo xam da ngay yàlla dala nattu ci aljuux mooy xiif te foog naa loolu am na ñoo xam ne ñu ngi koy dund au jour le jour ci ci doomu aadama yi maa ngi xalaat sunu mbokk palestiniens yi maa ngi xalaat sunu mbokk birman yi nga xam te ne ay julit lañ maa ngi xalaat ñi nga xam ne ay syriens lañ mais aussi maa ngi xalaat fii ci Sénégal ñi nga xamante ne si nii tey lu ñu bëggoon lekk mënatuñ koo lekk ndax jamono moom moo fa toll nga xamante ne si nii xiif dugg na ci ay kër yu bari ñenn ñi seen ngor dong lan dese yaa leen ko ne leen nattu ci leen loo xam ne tiit la leneen li ñu nattoo leen xiif wa naqsi am amwaal ak wàññeeku ci wàllu alal tey jamono jii ñu toll je crois que lii actualité ndax am na ñoo xamante ne si nii yëg nañ Euh, situation économique bi fu mu toll waaw maa ngi xalaat suñu mbokk enseignants yi nga xam dañuy travailler dans le privé nga xamante ne si nii ci privé bi lañ daan lan liggéey weer bu deewee ñu mën a faj seen soxla gis nañ ñu bëri bi feebar bi duggee nga xamante ne si moom la ñu wax corona bi bëri na ay école yoo xam ne dañaa jóg ay directeur d'école di sàkku ndimbal ci gouvernement bi ndax li ko waral mooy ay millions lañ daan fay li nga xam moom mooy seen personnel te tey mënuñu koo fay ndax lan moo ko waral am na ñoo xamante ne si nii ñu ci parents d'élèves bi ba tax mënuñu fay li nga xam moom mooy seen personnel kon wàññeeku ci wàllu alal am na ñoo xam ne ñu koy ñu ngi koy yëg maa ngi xalaat sama mbokk pël yi nga xamante ne si nii dañ daan profité ci màggal di profité ci gàmmu di profité ci événement yu nekk ak nu ñu xamee Sénégal ni mu bëri ay événement tey mënatuñoo jaay seeni xar ñii mënatuñoo jaay seeni nag ñii mënatuñoo jaay seeni lan seeni ginaar ñi nga xam ne si nii kon ñooñu yëg nañ fi mu nekk li nga xam moom mooy wàññeeku ci wàllu ci wàllu alal wala an fusi ak sax ci wàllu bakkan ci wàllu bakkan ndax tey bëri na ñoo xamante ne si nii euh, ñàkk nañ seen bakkan ci li nga xam moom mooy feebar bi loolu moom foog naa la lu ñëpp teg seen bët la ñu ngi compter ay milliers de de morts à travers le monde Sénégal xëy na liñ ci am bariwul yàlla na fi yem euh, mais nag ñu xamante ne léeg yàlla dina wàcce ay musiba ak ay balaa yoo xam doomu aadama yi dañ ci lan dañ ciy wàññeeku yàlla ne tamit wastamaraat astamaraat mooy meññeent yi meññeent wala ñu ne production yi nga xamante ne moom lañ daan béy te loolu dafay am ndax gis nga fépp foo xamante ne si nii dafa am li nga xam moom mooy avancée désert wala mu am désertification wala mu am li nga xamante ne si ni moom mooy ay inondation bërëb yooyu yëpp nga xam dañ ko doon nekk di ko bay nit ñi dootuñu ko lan dootuñu ko mën a tee bay kon da ngay gis yàlla leen leen ma nattoo leen li nga xam moom mooy lan wàññeeku ci wàllu ci wàllu ay meññant wala sax yàlla yoon yónnee leen lan ay ñu mel ne comme ay njéeréer yooyu nga xam ne jamono mosoon naa wàcc jamono yàq ay tool nga béy ba nga xamante ne dangaa war a jot sa production mbéy ma daal di lan daal di daal di yàqu wan leen yàlla lan la ko jeexale wa bi sabirin mooy nanga nga bégal ñi nga xamante ne si ni ay muñkat lañ kon attitude bi nga xamante ne si ni moom la jullit war a am ci jamono bi nga xamante ne balaa dafa daf daf daf daf daf dafa wàcce wala moom mu nekk ci fitna mooy mu nekk koo xam ne da ngay lan da ngay muñ yaa leen muñkat yi nga xamante allazina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñi nga xam te ne bu leen musiba dalee li ñuy njëkk a def mooy dellu ci borom bi subhaanahu wa taala kon ute naa ki nga xamante ne si nii bu musiba wàccee dafay lan dafay weddi borom bi subhaanahu wa taala am benn nattu rek nga weddi teraanga bépp boo xam ne allah subhaanahu wa taala mosoon na la ko lan mosoon na la koo defal kon ñooñu li ñuy dellu mooy ci yàlla subhaanahu wa xam ne yàlla moom moo leen moom inna lillahi ñun yàlla moo ñu moom wa inna ilayhi rajiun te ci yàlla ji lan la ñuy dellu ñu xam ne kon lépp lu am yàlla moom ko bind te lépp lu dul yàlla neen la kon bu fekkente ne dafa am benn fitna bu ñëw nga xamante ne si nii yàlla def ci nattu doomu aadama yi wala di ci nattu rawatina jullit li mu njëkk def mooy ànd ak sagoom xam ne allah subhaanahu lépp lu am ci kaw suuf ci coobareem la am nga loxoom la nekk moom moo koy lan moom moo koy dogal waaw moom mooy dogal mbir yi di amal mbir yi ci waxtu boo xamante ne si moom moo ko moom moo ko soob kon yow li lay war mooy nga ànd ak sa sago dellu ci yàlla lu si moom ngir mu mën laa teggil li nga xam ne moom mooy moom mooy natt boobu yàlla nee na ulaayika alayhim salawaatum min rabbihim wa rahma wa ulaayika humul muhtadun yàlla nee na ñooñu nga xamante ne si ni bu ñu nekkee ci jamonoy nattu dañuy dellu seen borom subhaanahu wa taala nekk ay muñkat yàlla nee na ñooñu ñeel na leen ngërëmal boroom bi subhaanahu wa taala ñeel na leen ay teraanga yoo xam ne dañuy jóge ci boroom bi subhaanahu wa taala ak lan ak raxma muy yërmande wa ulaayika humul muhtadun te ñooñu la yàlla gindi lan la doomu aadama di ut ci doomu aadama loolu mu nekk nit koo xam dafa gindee ko ndax bu ñu fàttalikoo ñun ñëpp xam nañ ne ay jaam lañ sunu Euh, mission principale ci kaw suuf moo ñu nekkal allahu subhanahu wa ay lan ay jaam moo ñu wommatu ci li nga xam te ne moom mooy siraatal musta mustaqim kon nag dafa bokk ci màndar womatu yàlla bu indee na nattoom teg nga daal di nangu daal di muñ daal di jël lépp delloo ko ci borom bi subhanahu wa taala kon bu ñu xoolee ñaari aay yi nga xam dañ koo jàng dina am benn constat boo xam ne dafay ñëw mooy muñ muñ kon toujours dafay daf koy daf koy daf koy dafay am dafa am relation ak li xam moom mooy lan moom mooy nattu yi nga xam te ne si ni allah subhanahu wa moom la lay moom la lay teg moo tax yàlla ne la woon axasibtum an tadxulul jannata wa lamma yalamu llahu allazina jaahadoo minkum wa yaalama saabiriin kon gis nga allah subhanahu neen ndax da ngeen foog ne di ngeen dugg àjjana ah te fekk yàlla xamul ci yéen ñi nga xam dañuy góor góorlu ak ñi nga xam dañoo xam ne dañuy lan dañuy muñ kon ñaari mbir ngay boole ah yàlla dina la nattu ngir xam ndax yow dangay góor góor di xeex ak sa bakkan sa bakkan bi nga xam te ne toujours dalay lan dalay dalay jëmaloo ci ay passion di la jéemaloo weddiloo li nga xam moom mooy teraanga borom bi subhaanahu wa taala ndax bakkan boobu jëng nga ko noot nangul ko li nga xamante ne si nii moom la ko yàlla teg ah, mu daal di koy nangu daal di wommatu di xeex ak moom ba am ci moom ndam ba ba mu bokk ci nga xam dañoo lan dañuy euh, kon waxtaan baa ngi noonu mbokk yi euh, maa ngi leen di sant di leen gërëm euh, maa ngi koy fàttali soxna may mën a jàll di leen sant di leen gërëm di leen wax rek ngeen gën a suivre li nga xam moom mooy émission yi ci Mouslih TV di leen jox dox daja ba beneen yoon incha allah salaamaaleykum surtout ngeen abonné nag di aimer di partager Euh, ngeen abone ngir euh, yokk doole li nga xam moom mooy seen chain en ligne incha allah salaamaaleykum kon weer wi sidna nabi kon weer wi